mais fa la ñuy desandi ba léegi sañ Mara <laughs> euh, da nga ñoo tàmm di ñu seetal ci réew mi ma loolu laa bëgg ah tey wax dëgg yàlla bu fekkee ni seet <laughs> bi euh, mu ngi fi mooy wax ñu ci réew mi quand mm-hmm. li nga xamante ne bi moom moo euh, nar xew mm-hmm. rawatina aussi ci mbir yu bari yi nga xamante ne bii. am lan ay sëy yu fi amoon. yoo xamante ne bii dañ ciy déggaat ay euh, bruit bu ci mel ni Sala saw ak ki nga xamante ne bii mooy Awa Baba Thiam ñoom ñaar seen diggante. Mhm. ginnaaw bi Awa Baba may euh, doomam Alioune Seck. Mhm. muy euh, Khadija moom dem nañu ba déggaat ay plainte te itam am nga loolu ñu waxoon ci sëy bi. man nag yëfi bu tollee fii ñaare dafa am lu may def loo xam ne lu may seet la te lu may gis la gis nga Awa caam mook Sala Sow mii. na ma sénégalais yépp bàyyi xel te maa ngi leen di jël ñoom ñëpp témoin ci wax jii may bëgg a wax seen yéeg ka wàcc bii bakkan da cee taxaw hmm? barke yonent yàlla Muhammad awa na def ndànk ñi ngi rëqi ndiggam te ñi ngi gor yi tànkam awa baaba caam ñu gën koo xam ci awa caam mbiram dafa tàng ci at mi jër te mbiram dafa am ay rëq-rëq yoo xam ne góor sax a ngi ci kawam di ko pexeel nii te pexe mi bu jàppee nga baal ma dana rëq ndigam te sëyu doomam dana mel ni lu neex waaye danañ ko laal ci jeexital yi te ay mbiram dana nësax awa caam ñi ngi ci kawam ñi ngi koy gor te coow lii bu ci rocceekuwul war rabul këxbatu mu sarraf bind leen yéen ñëpp denc ay mbiram danañ ko nësëxal waaw kuñ ci naan ci awa caam bu rocceeku awa baaba caam waaw awa caam bi rek dindil baaba bi dañ koy dindi baaba bi bokk ci ëlif gi benn la waaw gi siis jiin gi ñett alif gi wax ci benn bu dee mim gi quarante xanaa jël na awa caam dafa war a génn ci coow li waaw <laughs> c'est-à-dire que coow li bakkan da cee taxaw maa ngi alert nag ci ñoom ak kuy seen ay mbokk nga jël say matukaay te xam ne mbiri awa caam bii awa na rocceeku loxoom dafa tàng jër ta fi nekk nii mbiram li muy xeeñ nga baal ma dara baaxu ci nag dana mel ni lu jekku mel ni lu am ndam te amoo ndam ku koy digal da nga naan ko na rocceeku loxoom ci coow lii wallahi lii xëy ci coow lii neexul jëm ci côté man nag bu ma waxee ay mbir dama koy wax rek te yàlla tax baaxe leen ko dimbale leen ko am na kuñ ci naan ci sala sala daam bopp hmm? waaw sala saw damay ñëw ci sant bi rek saat gi damay ñëw ci soixante ak waaw gi siis kiñ ci naan sala sala <laughs> moo tax euh, léeg-léeg góor xoor mbir sala gis nga at mii ñuy dugg uh-huh. moo tax bëggumaa wax dara sax di mel ni luy dugg ci ay baal ma ci wax ji ci ay ci ay ci ay vie eh, privée na ma yàlla baal ci wax ji waaye seen coow lii uh-huh. waaw kum tiitalul amoo bassira te amoo dara te saa boroom nag man de li may ñaan leen képp la coow li jeex tàkk coow li bu fekkente ne coow lu taxawal bakkan wóorut li may ñaan mooy coow li jeex kon lan mooy lan mooy solution te la tax ma wax ci lenn la nag nga baal ma mm. man ci réew mi laa dëkk te budul dara maa ngi sóor xaye xale bi nga xam ne mi ngi sëy muy Khadija waaw sëy bu tas buy laaj bakkan wóorul ci aw coow waaw si ndax bi ci kaw ñu koy bay bayal bam daanu ci suuf daanu ci ànd bi ànd bi dina na jëppit te néeg bi yëpp dana takk te lii di xëy neexut te nañ ko rocc seen loxo nu mu gën a kon li gënoon mooy ñu bàyyi bu ma ci sonal bëgguma wax lu ëpp ñu fay coow non coow li day coow li jeex na wax naa ci Ah, ah, <laughs> alors euh, euh, dañuy desandi ba léegi ah. ci mhm. euh, yeneen i mbir. aw ma lu may des de aw ma jot liggéey bi daa bari. waaw ma may kay li may daa bari ay ca ñu def. may may ma s'il te plaît ñu. Mhm. Khadija mi nga xam ne moom ci sëy bi bokk. Khadija moom Alioune. Alioune Seck. nañ tuuti. Hmm? te yàlla musal leen ci waxi guddi. man nag bu may wax day mel ni wax ja day kii dafa am lu ma toogaale. yaay wërta yàqal doom waaye doom it wërta yàqal yaay te mbir mi buñ xamoon la ca biir ak lañ ko dëj xol yi di tàng dug nen de te mbir ma mbiri xale la waaw te ku si nekk danañ la dës te si la lii lu li ma lay wax nii lu wër la te danañ ci yegg lii dañ ci lii moo am bëgguma cee xuus jërëjëf